waaw loolu lu nekk la li nga xam ne moo ko tënk sax mooy nit ñi ñëw amul discipline ci mbir mi accident yu ëpp du code de la route mais moo koy andi ndax bu ñëpp respecté code de la route bi jëy yi mën na wàññeeku wala mu jóge fi gis nañ ko ci bi ñuy def couvre-feu rek doo gis kenn bu ñu yow nit ñi dawal dañuy dawal ndànk amul xëccoo amul ji buggante amul jëkkalante kenn kenn nit ñoo war a gëm ne kenn lu jël du sa wërsëg mais jël xale bu ndaw amagul maturité dawal oto xamagul luy dund xamagul luy àddina dencul sax soxla di dawal oto bay rey ay nit loolu war nañ ko seetaat chauffeur si dañu nañu delloo si seen xel te xam ne doomu aadama yi ne yiy dox moomuñu leen dañ leen fay pour ñu yóbbu leen fi ñu war a jëm dañ leen fay pour ñu jëndali leen suuf wala ciment wala béton wala brique mais oto yi tamit nañu war a wér doone sama oto bi mun naa ko dawal rek oto bi wérul visite technique dafa baax ci it lii xew bërka dema metti na ci ñi xale yu dee te lu ko andi mooy ñàkk discipline rek oto bu amul visite technique nga koy dawal oto bu amul frein nga koy dawal frein dafa baax ci nit mais nag frein ki jàng moo ko xam ki jàng xamu ko un responsable mooy xam luy frein te frein dafa dangereux bu nekkul musiba rek lay àndi président de la république Euh, ni mu defal chef de quartier yi defal ko ñu bari muy député yeeg ministre yéegi yëpp imam bi dañu am rang social boobu ndax ministre du culte lañu te ñu ci bari ni ma ko waxee moo suñu mosuñu fayeku weer mosuñu xam li bulletin de salaire te pourtant lu xew ñoom la ñuy oo jot na nag comme ni ñu koy defee ci yeneen réew yi muy Maroc muy Arabie Saoudite muy Dubaï muy Koweït muy Qatar yooyu yëpp dañuy fay ilimaan yi wala dañ di jox benn bourse boo xam ne moo leen di permettre ñu mën a dund ndax dund bi dafa metti mais imam da ko ñuy jox ay ñetti sondeel sabadoor bu yu màgget wala mu ñëw taxawal sa ngénte walla sa dëj bu paree dem noonu loxo neen imaama dafa metti bu guddee ñu yàlla ne diw gaañu na yàq sa nelaw nga xëy yendu ci dëj boobu bu ngoonee booy dem ki nga demoon dëj sax doo seet sax ndegam ñibbi nga wala am nga paas boo ko julli leen néewam ba denc ko ba ñaanal ba dem pare nañ ci yow imam nag dañu war a revendiquer ñu améliorer waat situation sociale am donc loolu ñu ngi koy ñaan président de la république mu taxawu imaam yi ci mbir moomu te suñu siège bi ñuy tabax mu digoon ñu ko nañu ci dimbali te taxawuñu ci ndax ñu ngi ci mbedd mi jërë ngeen jëf